doomu ministre bu dagg bi ñëw si stade bi di supporter benn mbër waaye am leen fulla am leen fayda te suñu xaalis la ñuy utiliser noonu suñu xaalis la ñuy dundee taluñu ñun taluñu suñuy programme taluñu làmb taluñu soirée ñun ñu bëgg a topp ay làmb ak ay soirée ki concert loolu dafa jor réew boo amee benn cinquante mille dem yàq ko foofu suba looy jox say waajur suñ demee ba suñu nappkat yi ñoom ñooy jël gaal gi di dem Espagne te daan dem campagne di ñëw ay wii millions dix millions yabooy sax mënatuñ ko jàpp ndax tubaab yi nangu nañ géej gi ñun kañ lañ gëj a lekk jën bu mag jën bu normal ñun kañ lañ ko lekk ku ne boo wax lay yàlla yow mi ne Sénégal gën ngaa lekk jën bu loolu yëpp pour lan ñu fàtte ni am na ay nit ñu tëj ci kaso bi ñu fàtte que ni am na ñu dee te ñun lañ doon xeexal nañ dem topp concert yi dem to mosoo fi gis doomu ministre bu dem soirée Ibro Naajo wala soirée kenn ne fay tus tasar mosoo fi gis benn doomu ministre banlieue bi dañ leen a saaga dañ leen a insulté li ñu ko laay mu ne état bi su dee banlieue bi dafa dem ba incontrôlable na jël ay moyens mu def ko si làmb ji pour wan leen ni ñoom comme ay dof lañ boo leen defalee ay tëgg fecc concert mu tourné ci loolu fàtte actualité bi. li ñu bàyyi loolu cëram mais dinañ ko wan ni ñun banlieue bi néew doole rek moo ñu boole foofu mais ñun duñu ay dof boo xoolee ay intellectuel ñoo fa dëkk ay nit njaay ay responsable ay kilifa ñoo dëkk ci banlieue bi. taluñu ay tëgg ki fecc Sénégal baax moo ñu gënal ay tëgg ki fecc état bi na jël milliards yi ne ci àddu ci Sénégal yëpp xëpp ko ci actualité yooyu nga xool. xëpp ko ci programme yooyu nga xool ba xam jubanti Sénégal duñ ko dem concentré wu si que ay tëgg ka fecc bu leen kenn def ay dof jël ay xaalis dugal ko ci ay làmb dugal ko ci ay concert dugal ko ci leneen ak leneen xool leen programme yi fii ba décembre ku si nekk na dafa boppam analyse fii ba décembre ay programme weekend sur weekend pour ñu fàtte état de santé wu Ousmane Sonko ñu fàtte que ni Ousmane Sonko candidat la Ousmane Sonko lu bëri def na ko si bopp yi mais si des c'est à nous li si des def ñoo koy defal suñu bopp man maa ngi nii si laami ji laa nekk taxaw xeex dëgg moo tax xolal combat sax waxatuñ ko mais man je m'en fous parce que ma intérêt personnel man kese ma am amuluma njëriñ j'ai des milliers de amis yoo xam te ni kenn amul kenn xëyul kenn gontul lu ma am ñoom laa koy bokkal kon man ñu bañ ma tëgal ma toog comme ñoom moo ma a gënal fuuf ñu ma jox man kase <coughs> nañ leen delloo si war xel te xam ni projet bii du pour Ousmane Sonko du pour keneen ak keneen projet bii c'est pour tout le Sénégal te état bi système bii nii fekk jugu fi ñun ci souffrance la ñuy dee système bii fekk mi ngi fi ci jaay doole tëj ku la neex la ñuy dee da ngay dem ci ay France ak feneen ministre de l'intérieur bi nga am ne moo nekk en cours su jaarul yoon dañ koy yóbbu projet Sénégal fii suñu ministre de l' intérieur kan moo ko sañoo yóbbu si yoon injustice yooyu yëpp ñu koy gis ñun ba pare ñu toog croiser les bras comme si dara xewul bu leen projet bi ñoree bu leen Sénégal ñoree bu leen seen avenir ñoree jóg leen bu leen xaar ku leen woo muy sénégalais yi fi nekk ak ñi nekk si diaspora bi ku ci nekk côté domaine bi nga nekk ñi mën a communiquer ñu communiquer ñi mën a nekk ci réseaux sociaux ñu nekk ci parce que dañ ci nekkoon bañ tëj internet. parce que moment bobu non xex bi tarna mais état yi ni ñepp a baissé les bras du yoon Ousmane Sonko mi ngi fële état de santé dafa dafa doy war waaye su ko neexon def ni yeneen politiciens yi dem lek teug japp ñamuram yor ay milliards mais défar Sénégal moko ko jaral mu dem teud fële ñun ñu bëgg dem tourner tek ci lenen merci Tafa <clears throat> koku ngeen deglu léegi. kooku mooy Tapha kooku mooy Tapha Mbeur Tapha euh, message bi mu lancé bépp doomu sénégalais bu normal am nga ci responsabilité dama bëgg ngeen partager live bi ngeen partager ko massivement doo leen dégg Balla Gaye 2 yu mel nii de wala ngeen dégg sama yeneen ponkalu mbër yi doo leen dégg ci débat yu mel nii parce que ces débats ça c'est un débat de maanaam lii débat wu patriote la lii mooy bëgg sa réew ci yeneen débat yi ñu nekk mooy débat wu self preservation selfish maanaam sama bopp li may wax yëpp ci man dong la dama bëgg ñu dem dégluwaat ba léegi ngem kam li xew c'est important vidéo la waye ñu déglon ndoko ndax li wax amna solo bismillah. Sénégal est le seul pays au monde où les universités sont fermées, privant des milliers d'étudiants de leur droit à l'éducation supérieure. Pendant ce temps, l'arène nationale reste ouverte, offrant divertissement et spectacle à la jeunesse sénégalaise. Les étudiants réclament l'ouverture des universités, un droit fondamental pour leur avenir, mais pour des raisons purement politiques, leur demande est ignorée. Pendant que certains envoient de leurs propres enfants dans les plus grandes universités du monde, l'avenir des étudiants défavorisés est sacrifié. Face à l'incertitude et à un avenir précaire, de nombreux jeunes prennent des risques insensés en embarquant sur des pirogues pour l'Europe, cherchant désespérément un avenir meilleur. Les familles sont déchirées, inquiètes pour leurs enfants, le Sénégal traverse une période difficile et il est grand temps de briser le silence. Les étudiants sénégalais méritent une éducation de qualité. Leur avenir ne peut pas être sacrifié pour des intérêts politiques. Il est temps de se mobiliser pour l'éducation au Sénégal. Partagez cette vidéo pour sensibiliser et demander des solutions pour les étudiants. L'éducation... ay milliards yuy nax saay si lu dul yoon geej gi nga jaay suuf si nga jaay kat bi door tey dundu ay jafé jafé yu doy waar nga ni tabax ngay stade waye mënon na nek ay milliards yuy nax yoon geej gi nga jaay suuf si nga jaay kat bi door waar tey dund ay jafe-jafe yu doy waar nga ni tabax ngay stade waaye mënoon naa nekk ci réew moo xam ni charrette doonu fa ambulance nga ni tabax ngay arène te ba tey am na ñuy jàngee ci ay mbaar oto yu màggat <laughs> Craig I see you I see you right there àll bu yaatu dëkk bu xat Dakar rek du Sénégal réew mu amul kubéer ku jug dugg dugal sa la neex xeetu si ne bari yiy dugg xale yiy gars yi may leen ma une minute il faut yenn saa yi dafa am suñu mbokk yi woote euh, may leen ma une minute ah voilà voilà may leen. ñu naan la xanaa doo li waykat bi naan waxi dof jeunesse bu inconsciente te parano ñenn si ndaw ñi di jox bopp ñu jarul topp. rew mu sacc ak di leur ëpp baat kilifa diine ak kilifa aada fi alal ak daraja mo fi ëpp baat ñi am baat kilifa yi araftu bu mujjee noppi ndax tan xam lu gu metti baykat bi gisatul pep ndax tol si nga jaay nasaran si dundigu yokku xif ak mar di nu mujjee lek ba ñu laf ñun suñu pétrole ak gaas bi taxul réew mi rekk su ma déggee ay ci rot sama fit bi dem ndax géej gi lënkaloog bël bi di faat njabootu mool si lu kenn mënta xayma ma dégg ni buur tuur na ci alal ju bari te ba tey taxul mu jur saafara di liggéey ci ñàkk kaaraange te mënuñu see am teraanga géej gi ngeen jaay fii naar jàpp la fee gën a yomb nga jàpp fi jën ba tax may laaj kañ la mool di naru système sanitaire bu paralysé tawat ba gën a tawat ñi tawat ragal dem kër doktoor ndax amatul assurance bërëb bu fajukaay yu amul jumtukaay ñi lay sayutu di lambatu, te ñepp xam nañ ni fourchette du tank ñeex ñang ak ñangalé suxé réew mu ndaw amatul yaakar ba tax ñepp di jël gal gi li jaasé yi ci marché yi jeune diplômé di chômé ku ci pare jang yaangi jaay té du téñu lay dakk di nangu sa jaay nongo dara bangi jo jooy tum ranke télévision yi di parparloo ñoom ñu xibaar yu wér tey wër-wërloo ay journaliste yu fo te duñ mu ko dëgg ñenn ci artiste yi ni pat su rew mi tak ñu ni tek ngir sam seen baat ak seen patch su lepp ne tek ñu genn ngir bëgg bokk justice bu corrompu yoon bu dëng si ñu waroon doxal yoon ba fuye say droit yóbbu la nungu siin su lu dul yoon ndaw yu fippu si li leen soxal di xeex seeni àq ki yeen ba mujjee kasu kaso yi nga sol ba mu fees te ñu ñàkk def gën fa fés mu mel amuñu pexe tëj dundin bi jafe fa yi bari fa détenu du yuuxu kuy wàllu je pense que

Euh, drame boo euh, épargné wul euh, am benn famille sax bu mu laal sept membres d'une même famille ñom ñoo das ci géej quartier bo xamanteni wala commune yo xamanteni pratiquement amatul ay ndaw loolu mo xew fële ci Bargny li ko waral nak di émigration clandestine waxtan nañ ci waxtaanaat ci mais mel ne gën di ñëw di gëna nekk ci actualité. waaw une autre catastrophe. léegi nga posé la question il faudrait combien de morts pour que sunu état bi.

ah eh, dëkk bi di gën a dëgër ñu jóge ci eh, eh, dëkk bi dafa makki ñëw ci des national mm-hmm. tey jii nii kenn xamatul quelque part difficulté yi nu mu toll ci askan wi donc pendant mu ans mënuñoo régler lu mën a tax ndaw ñu toog ci dëkk bi mais au moins sax nañu débrouiller wu de sorte que sunu sept cent cinquante kilomètres de côte yi mais ñu sauvegarder ko de sorte que bato do gaal dootu fi jaar di demati. Mm-hmm. xaaral loolu c'est le c'est le minimum. oui sauvegarder les vies des te tey jii nii dama naan sept cent cinquante kilomètres de côte mais am na boor yoo xamante ne nii du jar sax surveillance parce que ak euh, euh, littoral bi nu mu demee foofu dalay leer ne pirogue mënu faa jaar mhm. mais zone yi nga xamante ne ay pirogue mën nañu faa jaar pour dem euh, comment dire ne dañuy dem Espagne la xawma fan mhm. mais si le faut sax day jar bu nekkee état bi bëgg na véritablement mettre fin à cette histoire la day jar ñu jël même l'armée teg ko ci code yi pour dissuader ñi nga xamante ne nii dañoo bëgg a jël gaal yi te dem. mais bu nekkee ne dañ naan ay euh, cinquante personnes dem nañu trente doo nañu vingt décédé nañu. tey jii nii ñu ñëw naan deux cent décédé nañu mais le pays di def comme si de rien rien rien n'était man indifférence su sénégalais yooyu par rapport à ces drames man moo ma commencé inquiéter Pape Matar. Mhm. comme mhm. si ñi ñuy wax ne ñoo de ay xar lañu wala ay béy. mais même quantité béy sax bu toll noonu su décédé. Mhm. mais dëkk ba mu décédé nit ñi dañ ciy bàyyi xel. waxatuma laa ay nit. des jeunes yoo xamante ne nii pour man ça doit ñoom ñoo war a euh, nekk le véritable. avenir de ce pays là. Mhm. même à partir de maintenant sax waxuma waxu avenir parce que loolu lu ñuy wax di ko naxee ndaw ñi la. donc dès dès à présent la ñu war a constituer une force boo xamante ni war na mën a jàppale Sénégal mu développé. Mhm. mais ñooñu dem tey jii nii ba gerte Sénégal di. continuer par des dizaines des centaines de Guinean sénégal par n'importe quel moyen. Mhm. ñu lay wax naan. Today, what you see here is 275 people have just died again in the Senegalese waters. And at no time you will ever hear the Senegalese government talking about that to the world because it's the biggest failure our government has ever done. If you want to be exact, there have been more than 3,000 people dead in the Senegalese waters in this year alone. More than 3,000 people died. That's more than September 11, the attack on Israel, and all the deaths combined. More than 3,000 people, Senegalese youth, I'm talking about young. These are not elderly. These are not women, elder, elderly women. These are young children. Because in Senegal, our biggest resources are the young. So more than 3,000 young people have died in Senegalese waters this year alone. Now, don't count the 50,000 that has tried to take the desert. And in the desert, we have lost more than 10,000 between Senegal and Libya and all those Arabic countries. Not counting the Nicaraguan road, which today the Senegalese government, and why am I saying this? Is the world must know this this is something the world must know. That the migration problem that's causing you all the nightmare here, here, here today in the U.S. is organized by corrupt governments. It's organized by corrupt governments, like the government of Senegal. Macky Sall today has opened the waters, has opened the airports, because he's afraid of how much young people he has in his country that does not have a job because his government failed to take care of the population. So Macky Sall failed to create jobs to take care of his population. What did he do? He opened the waters, tell him to go towards Europe, and he opened the airports. Only in Senegal you can enter. Listen, you see how hard, do you know how hard it is to get to the United States? You know how hard it is? the visa system, the line you have to wait, you know, the time it takes and how much you pay. Nowadays in Senegal, getting to the U.S. is easier than going to Burger King. You know how going to Burger King from your house, wherever you are, going to Burger King, coming to the U.S. is easier than that. Because Macky Sall have opened our airport. You can take a plane from Dakar City to Nicaragua. And then from Nicaragua, you can just walk a couple days and you're in the border. And from the border, you can enter the United States. And why? Because the Senegalese government want the youth to leave the country. They arrested one of the most popular opponents. You know, when you have, this is what happened when you have a corrupt system in place. They will do everything they can to try to stay in power. If that means attacking a country like the US's economy right now. Right now, the US economy is suffering. And one of the major players in the world for that economy is the country of Senegal. If you want to come to Nicaragua today, even the borders in Mali is secure. The borders in Guinea is secure. You have to take a plane from Dakar, Senegal, and nobody going to stop you. You can go to the airport of Dakar and take a plane straight to Nicaragua. This is what the Senegalese president have Faut que les Sénégalais, qu'on se focalise et on se prépare à prendre nos responsabilités pour se débarrasser de ce gouvernement de bandits. Macky Sall fait exactement ce que le pharaon avait fait en Égypte dans les siècles passés. Avait-il réussi Jamais de la vie. Macky Sall pense-t-il pense qu'il va réussir il ne réussira pas. Inch'Allah Rabbi. Il ne réussira pas. Il est dans un banditisme masqué. Il le fait d'une autre façon. Il a essayé la tuerie, ça n'a pas marché. Il a essayé l'arrestation arbitraire, ça n'a pas marché. Il a essayé la dissolution des partis politiques. Cela n'a pas marché. Maintenant, il a ouvert les frontières du Sénégal. En le faisant, maintenant, il nous taxe de terroristes. Je vais vous dire une chose, les, Sénégalais, parmi vous qui connaissent. Saviez-vous que Macky Sall est allé prendre des détenus Des détenus qui étaient accusés de terrorisme à Guantanamo Bay et dire aux, aux Américains de leur donner ces prisonniers, il va venir les emprisonner au Sénégal. Moi, je ne sais pas dans quelle prison ils sont emprisonnés au Sénégal. De tout ce que je sais, peut-être il les a même lâchés dans les rues de Dakar pour après demain venir nous dire que le Sénégal, il y a des terroristes. Oui, les terroristes sont rentrés. Il est allé les transporter de Guantanamo Bay du Sénégal. Maintenant, il nous parle des fils dignes du Sénégal qu'on accuse de terrorisme. C'est ce qui se passe dans ce pays. Maintenant, les amis, je vais venir encore dans une discussion, comme je le fais toujours avec vous, sincère et une discussion honnête nous pouvons essayer de nous débarrasser de Macky Sall dans nos rêves. Cela ne sera pas le cas. Avec Macky Sall, il faut faire face. Macky Sall bëgg nañu ci suñu biir xel yi ñu tagato ak mom ci suñu ay manam ñu ne Macky Sall dem na rek ñu ci gént yi fekk Macky Sall dem la mais loolu du am Macky Sall xeex moo koy jël Sénégal doomu sénégalais ñoy xar sen tànk tubéy am fulla am fayda am jom te bëgg sen réew te bañ ku leen noot ñu jàmmarloo ak mom li suñu frère mbëri wax ni dégg ngeen ko bu baaxa baaxa baaxa baaxa baax vous pensez que Macky Sall a ouvert les arènes nationales à moment de grandes vacances Sénégal amul une grande vacances Manam vacances bo xamné ñetti wër la kenn du ban arène la c'est la campagne électorale de 2024 qui fait peur à Macky Sall parce que c'est celle qui va décider entre le système et l'antisystème c'est celle qui va décider the fate the fate of Sénégal manam notre honneur pendant les 50 ans qui vient c'est elle cette élection bii di ñëw nii ci Sénégal moi décider man de Ousmane Tounkara ci sama ngiiru bakkan gii ma dese am naa juróom fukk ak benn ci ay ren léegi janvier bii ma am loolu juróom fukk ak li moi décidé, décider ndegem sax ñun dinañu fait fu Sénégal di changer donc ñun ñëpp dañ ci am responsabilité carte d'identité yi nag nee c'est disponible partout dans les préfectures et les sous-préfectures du Sénégal dem massivement J'ai lissé une carte d'identité daw bi Didier bi di jéem idée en tant que quelqu'un qui connaît un peu dans le développement du monde le changement du monde tey boussole Afrique le jubal Ni am ay milliards yep kam nañu Afrique Moi futur bi manam Afrique nous sommes développer. Afrique la alal bi nek goudi bi mu ne du Amérique du Asie du Europe du Australie Afrique lenyapu ñepp di jubal goudi ñu tollu doomu africain yaa ngi génn Afrique chinois yaa ngi dem Afrique tubaab yaa dem Afrique lan ngeen bëgg 10 ans tay ci kanam bo leen continuer genn à sa nombre bo ñëwé Sénégal bu yébo ñu tuddé ko Shanghai wala Beijing wala ñu tuddé ko Rasa wala ñu tuddé ko Australie wala ñu tuddé ko France

bolen dewon 100 000, 200 000, 1 million de sénégalais Macky Sall du ko wax mas ngeen gis rek Macky Sall génn vraiment gaal yi lii génn ci réew mi bari na doomu sénégalais li dee na na arrêté voilà fermer les frontières mas ngeen ko c'est parce qu'il s'en fout de votre mort bu Amadou Sall deewul rakku Amadou Sall deewul ay sëram ñu Macky Sall sen yonam yonam ci nit duñ la gasal kàmb nga ci tëb man maa nekk Amérique te Ousmane Tunkara laa tudd waxaat naa leen nee naa leen Amérique dara amu fi billahi wallahi tallahi lazim billahi xale yi jóge Nicaragua ñëw fii Amérique tey dem leen ngeen laaj leen di xew fii woo leen leen am ngeen seeni ay mbokk ngeen woo leen leen numéro ñii ci mbedd la fanaan Ni ci ay souterrain ci basement le ñuy ni ci terrain bi ni fanan ni ci train bi lañuy fanan. ñu ngi leen di xex fu ils sont en train d'avoir tous les problèmes du monde donc yow pourquoi nga bëgg a ñëw ci problème boobu Macky Sall beugul sénégalais dund il a il vous a parlé de nouvel ordre mondial ñoom loolu mooy seen objectif ñu wàññi population africaine bi wàññi ko tubaab yi ñëw jël Afrique ak ressource Afrique yi tubaab du investir ci tey tubaab ci long terme lay investir tey boo demee Sénégal li fa nekk ci français ci parti Sénégal yu baax yi yëpp tubaab yee ko moom français yee ko moom Ngor nga dem Cap Skirring nga dem Almadies nga dem euh, Lac de Guiers maanaam demal fépp foo xam ne rek place bu yànji la ci senegal bi nga fekk ne tubaab yee ko moom donc yéen réew mi ngeen am réew moo xam ne yéenay toog toujours ne am na pétrole am na gaz am na zircon ngeen di daw di génn di bàyyi seen réew mi di ko jox tubaab bi mais loolu ban sens la am Macky Sall li tax mu wax leen moom nouvel ordre mondial ci lay dox Macky Sall bu ñu woon tey ci nit nga xool nga topp trasu nit dangay xam ne Macky Sall amul ligne bu baax xaw ma dara ci Aliou Sall waaye boo leen ko xoolee doo fekk ne am na lu ëpp ñaari doom wala ñett yoo xam ne wér nañu soit dañuy nekk genre mongol wala genre obéis wala genre yooyu makki Sall de même xolal domi yi moo am ak marem eh, Marème Faye Sall nii ñoom ñëpp dañoo obéis ñi am eh, retard mental ñi ñi ñi ñi feber pigmenté manam lu ne rek lo xalaat am nañ ko ñom duñu jur te duñu jur lu wër donc motax mom bu ko gënalon mu yak suñu Sénégal bi yépp parce que Macky Sall du baye Sénégal ay sët est-ce que domami sax am nañu dom est-ce que Amadou Sall man na jur xawma je ne sais pas damay laaj rek Amadou Sall am na doom li ma xamagum ci moom de mayoon nañ ko fi benn soxna waaye gisuma fi man niw bu baax bay jur doom donc groupe doomaraam lañ ko seqal yoo xam ne avenir u Sénégal ñoru ils veulent gâter notre pays they want to destroy our country what I have said again in Wolof what I'm going to repeat in English and come back and repeat it in French today when you look at what's going on in Senegal what would you actually say is going on in Senegal today? Macky Sall is doing everything he can to ship Senegalese citizens out of the country, either through water or through the air. Who's going to end up in Senegal? The Chinese, it's a whole lot of them. The whites, it's a whole lot of them. And the Africans, they are kicking them out of the country. Basically, they want Africa without the Africans. At the rhythm Macky Sall is kicking us out in Senegal is worse than what America has done to the Indians. And this is a black person doing it to his own population. The president of Senegal today. Guys, waa me? Hello, allo waa dama nekk en direct to xew Okay. ci ban situation dañ ko jàpp. ok. ok légui bàyyi ma pare après ma ñëwaat ci yow Légui légui légui. voilà comme li ma leen doon wax légui yéen a koy déggal sen bop. chaque jour que Dieu fait tu te réveilles euh, gëj naa nelaw cinq heures de temps hein, pour être sûr. pour nag yéen ñi xamul gis ngeen baag yi nekk sama suufu bët nii ça n'a rien à ak misère bu ma tëddee léegi nelaw su ma tëddoon léegi nii deux secondes je peux dormir mais mënumaa nelaw ndax téléphone yuy sone jàpp nañu ñii ci frontière bi ni kalenañu len fi ni ñu ngi di waja a ni amuñu fuñu teud ni amuñu luñu lek ni def nañ len li kale tooñ na jam na paaka nañ ko nit def na nangam li lay dundu matin midi et soir aujourd'hui pour le Sénégal c'est l'un des pays aujourd'hui dans le monde les pays les plus actifs Sénégal ñu mon actualité Amérique vous savez la population du Sénégal est de 17 millions population Amérique est de 330 millions Sénégal mon up Amérique actualité Sénégal mon up France actualité ces jours-ci ce que j'ai remarqué ils ont commencé à s'embarquer à la désinformation fan yi bo demé ci télé yi da ngay gis né dañuy yóbbu né nañu quelques intellectuels pour ñu ñëw waaw xam ngeen pétrole bi gaay di wax ni waaw pétrole bi mais pétrole bi da amul pétrole bi 2024 lay génn dañuy fenn pétrole bi ñu ngi koy exploiter bu yàgg-yàgg wala ñu né la gaz wala gaz bi ñuy wax sax déglul gaz laaj leen leen jaga, luy jaga, ils sont embarqués dans la désinformation pour gëna décourager doomu sénégalais yi pour gëna tax doomu sénégalais yi dem am ko xam sax démb dama ko dégg mu naan ñu naan wa Aliou Sall amel nañu mille milliards man mané Aliou Sall né quatre cent c'est pas une réalité voilà le Sénégal il nous amène des intellectuels dans les télévisions masquées dans les télévisions payées pour nous désinformer bàyyi leen loolu xel ñom ils sont dans la dans la campagne de désinformation manam comme xamnañu né légui léegi dara Sénégalais ñu ñuy fenn depuis depuis mille ñu ngi exploiter pétrole depuis temps wu Senghor à un minimum temps wu Abdou mu yokku temps wu Ablaye Wade mu yokku temps wu Macky mu explosé mu mel ni tulleeg male xam ngeen ñaata pétrole nous sommes nekk di exploité Sénégal mais qui sait ni mu toll les experts les contre et les experts qu'ils font là mais c'est parce que nous, pour nous, nous nekk au Sénégal nous on est toujours en plein sommeil non non non on est réveillés. mes amis le président Ousmane Sonko patrimoine la waxoon au sénégalais xam nga luy patrimoine moy lo xamné ne alalu réew mi la le président Ousmane Sonko man bokuma ak mom dara bokuma sax ak mom parti politique bokku ñu ndey bokku ñu bokkuñu baay bokkuñu dëkk ñu xeet est-ce que vous me comprenez mais xeex bi ngeen di gis makoy def suba guddi ngoon sur le président Ousmane Sonko c'est parce que c'est un patrimoine national rew mu ne day ñaan yalla am un Ousmane Sonko comme Albert Einstein comme euh, Nicolas Tesla comme euh, euh, euh tay nga ne italien kan la ñu wax ne mo gissone euh, Christopher Colomb comme Cheikh Anta Diop comme Diou, comme Mamadou Dia comme Thomas Sankara comme tay nga ne Patrice Lumumba comme nga ne Nelson Mandela Ousmane Sonko est un patrimoine national ñu il sera engravé déjà Ousmane Sonko est déjà engravé dans les livres de l'histoire mais il faut que nous en Sénégal nous faisions ce que beaucoup beaucoup de populations avant nous n'ont pas réussi c'est sauver ce patrimoine nañu sauver Ousmane Sonko mu dugg dans la bonne histoire maanaam mu bok ci nit ñi gouverner Sénégal tay. indil ñu kom koom bu baax xam nga lan mo neex dina len jox li lay teje nak. damay paré ni li lay teje. xam ngeen fani lan mo xew vous savez que tubaab yi ci sen dëkk comme man tay américain les services secrets sont en train de m'appeler de me demander des informations du Sénégal ñu may laaj ay ministre dima laaj ay chef de société di ma laaj ay nit ci Sénégal ah service services secrets américains ñoo ma nekk di laaj ay information ci ay kàngamu Sénégal guddi yi ñu toll Sénégal adduna bi yëpp xam nañu ne bandi la gis nga Sénégal adduna bi yëpp xam nañu ne ay bandi lañu chaque jour que nous ma ko filmer film bu may dem ci endroit yi won ne et ils sont être en train d'être traqués ñu ngi di traquer fépp fo xam ci aduna bi man ma wax dem autorité sénégalais dañu mel ni dëkk bi ñoo ñu leen gën a xam imaginel tey ay ay ay service secret américain di ma woo di ma jox ay turu autorité comme si ñoom Sénégal la dëkk du lépp la ñuy wax nag lenn li dañ koy bàyyi pour mu effectuer boppam pour ñoom ñu gis ko ñu teg ko ba faru baaba maal bi Jibril Waar Djibril War député assemblée faru Farou Baba Mal Djibril War leen fi woon ci mbirum Ousmane Sonko moom mi ngi détenir ay audio ak ay vidéo yoo xam ne bis bu génnee àdduna tukki waxu ko woon fii ci Maïmouna Ndour waxu ko woon fii ci ay tele waxu ko woon fii ci buntu assemblée nationale El Hadj Diouf Mongol Diouf El juuf ki takk jabaru cousin am Souleymane Ndéné Ndiaye maam jaarala ndaw si tudd ah maam jaara maam jaara la tudd El Hadj jabaram ji tudd maam jaara muy jabaru Souleymane Ndéné Ndiaye cousin boo xam ne seen ñaari ndey seen baay yi ñoo bokk ndey ak baay mu sàcc jabaram takk ko ñëwul fii ci kanamu senegal yépp mu ne moom de mi ngi yor ay vidéo ay vidéo Adji ñoom Gabriel Kane ñoom waa ji sàll keneen ak keneen ñoom ñëpp tëbuñu fii ñu ne leen doomu jàmbur bii Ousmane Sonko mi ñu sosal nii tëj ko ci biir kaso bi ñoom newuñu leen ñu ngi détenir ay vidéo léegi mënuñoo génnee vidéo mënuñoo culpabilité nit ki waaye dañ koy tëj ci biir kaso Sénégal yi di ñu indil ay làmb ñun ñu ne patt di seetaan ñun foofu la ñu toll non on ne va pas l'accepter ñun newuñu Ousmane Sonko bi ñu tëj ci kaso bi criminel la moo siifoon diw moo def lii moo dugal fale moo génne ñu ne ñoom ñu ngi yor ay preuve indil ñu léegi indiwuñu benn preuve waxatuñu dara dañu ne rek ah doomu jàmbur bi comme nit ku set la te mënta sàcc te masta sàcc moom du bokk ci ay élection lii mooy senegal lii la ñuy nangu ñun ñun dañuy toog ñu ne ñu ah, képp kuy sàcc ci senegal day bokk ci ay élection képp ku sàcc léegi maanaam nee leen ñu rek concours sàcc la bu leen ko tuddee ay élection dit ils venaient nous dire que voilà Sénégal concours sàcc moo fi am comme concours ventilateur am na concours lëmbal am na fa defe naa lëmbal bu bees jazz xaw ma charge je ne sais pas couche xaw quelque chose loolu tamit am na ah concours TikTok yi yëpp am na fa indil leen ñu concours voleur parce que lii du ay élection vous nous parlez des élections élection mooy doomu aadama bu nekk yor sa carte ñun ñëpp ñu dem kenn ku ne nga indi sa mbër sa mbër bàkku bàkku bi moy lan mu campagne wër dëkk bi ne man de bo leen ma joxe dëkk bi ni la ko yoré barki dem bo jaay de tegg ngeen fi lamb ngeen indil ñu benn mbeur ngeen ne moy mbeuru système bi d'accord ñu nit ñu am suñu amma balde mo xamne Ousmane Sonko rek la bëgg amma balde ñu faral yalla def nak mbeuru système bi daan kon yeen kay système bi wolu leen seen bop am ngeen seen mbeur legi Ousmane Sonko do len ko bay ngir yàlla yeen sat ngeen sen milliards yep dajale mana dem may sénégalais ku ne 10000 francs ak 20000 wala 30 ak 50000 pour ñu voter len te yeen li ngeen di def baxna mais bàyyi len doomu jàmbur bi bu len tal dekk bi ya xeyti Ousmane Sonko bo len ko laalee dañuy dugg sen bir kër yi sulli ndey sen baay yi sulli sen ndey def na bu len ma wax lolu baxul Ousmane Sonko di ngeen ko bàyyi par force loolu loolu du débat loolu du débat ngeen jàpp faru baaba maal yii nekk ci télé ya ka duula ka dajale ngeen jàpp sénégalais yi dàq fen ngeen entraîné leen yóbbu leen ngeen jàpp ay genre Aliou Sow Aliou Sow ba naaj gi di fay ndeysaan euh, kooku moom mënul woon wax loolu nit dof mënul woon wax loolu moom dafa gis rek Aliou Sow di dagga sante mënul xam lu bari ci moom nee naa leen Aliou Sow góor jigéen la man wax naa leen ko man Ousmane Tounkara maa leen ko wax ba fi may wax ak yéen nii mënu koo weddi Aliou Sow est un PD je vous l'ai dit clair et net kenn mësu koo gis ak gel amul gel ay far la am mu ngi dugg ci biti bureau ministre yu bari daf fay am lu mu sekk ñu bari ci ñoom ndax ñoom ñu ci bari ay borom ñaari tur lañ barki démb dégg ngeen fi Mame Mbaye Niang moom ñu ne leen moom dafa ëmbal ñaari sœur maanaam en réalité li ñu leen doon wax mooy dégg naa ñoom nee nañu sœuru soxnaam la biiral Sénégal band yu mel ni ñoo ñu jiite des délinquants comme ça à la tête de notre pays toujours à la solde de quelqu'un d'autre xam ngeen ennemi senegal Sénégal na xeex day am ay ay fossette yàgg nañ ko woo yàgg nañ leen cee woo nag waaye fan yi ñu ngi travailler ci beneen facette combat bi mooy ñu boycotté France kaay leen ma wax leen boycott lu muy def il faut ngeen déglu ma nag ak xel pas ak xol déglu leen ma ak xel pas ak xol voilà tey société boo gis ci adduna bi dafa am assurance maanaam boo demee Auchan dafa am assurance boo demee ci société yu magu àdduna bi yëpp dañoo am assurance comme Auchan yooyu ngeen taal yenn oto yeeg yenn bagage yi yeeg yooyu dañ leen di fayaat assurance daf leen di delloowaat seen xaalis waaw yéen lekk ngeen ba suur waaw am na lu ñu yàqal euh, assurance société yi dañoo am assurance léegi am na beneen forme combat boo xam ne boobu assurance du ko couvrir déglu leen ma bu baax Ousmane Sonko li muy def lan la du grève de la faim la tudd grève de la faim mooy nga bañ a lekk nga bañ a lekk ngay naan rek nga bañ a lekk Sénégal ñun ñëpp mën nañu def ñaari forme combat ñaari forme ñu luy alalu France ndax France moo nekk ci ginnaaw jàpp Ousmane Sonko bi Nous baña a orange ngeen baña a lek au champ, ngeen baña a dem ci bépp entité française ngeen baña jënd essence français dinañ leen indi liste société sociétés françaises. mais dafa baax ñun ñëpp ñu boycotté leen pour durer une semaine pour départ lolu société yoyu un bénéfice bu doon dix milliards wala vingt milliards dinañu ñàkk cinq milliards yi ci semaine boobu te loolu man xayma bu ndaw bi laa leen jox ndax ñooñu seeni ay bénéfice c'est des ah, c'est des milliers de milliards bu ñu leen boykatee benn jour rek dañuy ñàkk par exemple mille milliards ñu boykate leen deux jours ñu ñàkk deux mille milliards ñu boykate leen trois jours quatre jours ñu ñàkk presque ay dix mille milliards loolu buñ ko defee antité français yi ñom ñëpp ay yuuxu wayaa yooyu mi ngi mel nga japp sen bagage rek busko, ko ba mu dëgër dañuy yu par force il est temps que ñu indi modelu xex bu bees rew yi aduna bi yépp loolu lañu gëna ragal boycott boycott le tubab gëna ragal sax bombe atomique xam nga tubaab lutax mu ragal population bu bari parce que day xalat boycott bi day ne hee population bi bari nañu bari boo xam ne bis bu ma boycotté ma torox donc nañu commencé calculer loolu boycotté les entités françaises boycotté lépp luy alalu français ñi yónnee orange ngeen bañ ñii def leneen ngeen bañ dem leen ngeen bañ a laal lépp luy bagaasu tubaab bu fekkee ne dañoo bëgg dimbali Ousmane Sonko ci lii mu nekk dinañ ko waxtaanee ak njiit yi dinañ ko waxtane ak individu yi nga xamne sen kallama yi dina sori ñun ñepp ak journaliste yu bax yi ñu indi benn système boycott pour 72 heures lolu bok na ci combat yu bees ñi xex té te bu len faté encore waxat na len ko dem len jëli seen ay carte d'identité ba paré ngeen nek ci whatsapp yi waye bu fa kenn nek di wax ay waxu nañu ray nañu tal nañu dóor s'il vous plaît bu bokk fa kenn wax nekk leen rek foofu di waxtaane waa Ousmane Sonko yàlla na ko fa ja yàlla jëlee jàmm ak salaam parce que li tax mooy dañu bëgg di leen jox ay information yu baax bu fa nit ñëwee di wax ay rey ak a dagg ak a dóor ak génne leen ko sànni ko ci biti ngeen xam ne infiltré la ba ñu jox leen ay signal signal yi bu jotee ci voie autorisée yi lay jóge maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatu fi gis benn doomu ministre bu dagg bi ñëw si stade bi di supporter benn mbër waaye am leen fulla am leen fayda te suñu xaalis la ñuy utiliser noonu suñu xaalis la ñuy dundee taluñ ñu ñun taluñ ñu suñuy programme ñu làmb taluñu soirée ñun ñu bëgg a topp ay làmb ak ay soirée ki concert loolu dafa jor réew boo amee benn cinquante mille dem yàq ko foofu su suba lay jox say waajur suñ demee ba suñu nappkat yi ñoom ñooy jël gaal gi di dem Espagne te daan dem campagne di ñëw ay huit millions dix millions yabooy sax mënatuñ ko jàpp ndax tubaab yi nangu nañ géej gi ñun kañ lañ gëj lekk jën bu mag jën normal ñun kañ ko gëj lekk ku ne boo wax lay yow mi ne Sénégal gën ngaa lekk jën bu loolu yëpp pour lan ñu fàtte que am na ay nit yu ñu tëj ci kaso bi ñu fàtte que ni am na ñu dee te ñun lañ doon xeexal. nañ dem topp concert yi dem topp mosoo fi gis doomu ministre bu dem soirée Ibro Naajo wala soirée kenn ne fay tus tasar mosoo fi gis benn doomu ministre banlieue bi dañ leen a saaga dañ leen a insulté li ñu mu ne état bi su dee banlieue bi dafa dem ba incontrôlable na jël ay moyen mu def ko si làmb ji pour wan leen ni ñoom comme ay dof lañ boo leen defalee ay tëgg feeti concert mu tourné ci loolu fàtte actualité bi. li ñu bàyyi loolu du cëram mais dinañ ko wan ni ñun banlieue bi néew doole rek moo ñu boole foofu mais ñun du ñu ay dof boo xoolee ay intellectuel ñoo fa dëkk ay nit njaay ay responsable ay kilifa ñoo dëkk ci banlieue bi. talu ñu ay tëgg ki fecc Sénégal baax moo ñu gënal ay tëgg ki fecc état bi na jël milliards yi ne ci àddu ci Sénégal gi yëpp xëpp ko ci actualité yooyu nga xool. xëpp ko ci programme yooyu nga xool ba xam jubbanti Sénégal duñ ko dem concentré aussi que ay tëgg ka fecc bu leen kenn def ay dof jël ay xaalis dugal ko ci ay làmb dugal ko ci ay concert dugal ko ci leneen ak leneen xool leen programme yi fii ba décembre ku si nekk na dafa boppam analyse fii ba décembre ay programme weekend sur weekend pour ñu fàtte état de santé wu Ousmane Sonko ñu fàtte que ni Ousmane Sonko candidat la Ousmane Sonko lu ma def na ko si bopp yi. mais li si des à nous. si des ñun ñoo koy defal suñu bopp baay man maa ngi nii si laam ji laa nekk taxaw xeex dëgg moo tax xolal combat sax waxatuñ ko mais man je m'en fous parce que xeexuma intérêt personnel man kese ma am ma njëriñ j'ai des milliers de amis yoo xamante ni kenn amul kenn xëyul kenn gontul lu ma am ñoom laa koy bokkal. kon man ñu bañ ma tëgal ma toog comme ñoom moo ma sa gënal fuuf ñu may jox man kase nañ leen delloo si war xel te xam ni projet bii du pour Ousmane Sonko du pour keneen ak keneen projet bii c'est pour tout le Sénégal te état bi système bii nii fekk jugu fi ñun ci souffrance la ñuy dee système bii fekk mi ngi fi ci jaay doole tëj ku la neex la ñuy dee da ngay dem ci ay France ak feneen ministre de l'intérieur bi nga xam ne moo nekk en cours yoon dañ koy yóbbu projet Sénégal fii ñu ministre de l'intérieur kan moo ko sañ a yóbbu ci yoon injustice yooyu yëpp ñu koy gis ñun ba pare ñu toog croiser les comme si dara xewul bu leen projet bi ñoree bu leen Sénégal ñoree bu leen seen avenir ñoree jóg leen bu leen xaar ku leen woo muy sénégalais yi fi nekk ak ñi nekk si diaspora bi ku ci nekk côté domaine bi nga nekk ñi mën a communiquer ñu communiquer ñi mën a nekk ci réseaux sociaux yi ñu nekk ci parce que dañ ci nekkoon bañ tëj internet. parce que moment bobu non xex bi tarna mais instant yi ñepp baissé les bras du yoon Ousmane Sonko mi ngi feulé état de santé dafa dafa doy war waaye su ko neexoon def ni yeneen politiciens yi dem lek teug japp ñamuram yor ay milliards mais defar Sénégal moko ko ko jaral mu dem teud feulé ñun ñu bëgg dem tourner dekk ci leneen. merci Tafa <clears throat> koku ngeen déglu léegi. kooku mooy Tapha kooku mooy Tapha Mbeur Tapha euh, message bii mu lancé bépp doomu sénégalais bu normal am nga ci responsabilité dama bëgg ngeen partager live bi ngeen partager ko massivement doo leen dégg Balla Gaye 2 ci yu mel nii de wala ngeen dégg sama yeneen ponkalu mbër yi doo leen dégg ci débat yu mel nii parce que ces débats ça c'est un débat maanaam li débat wu patriote la lii mooy bëgg sa réew ñëlee ci yeneen débat yi ñu nekk mooy débat wu self preservation selfish maanaam sama bopp li may wax yépp ci man dong la dama bëgg ñu dem dégluwaat ba léegi c'est important vidéo la ñu ndax bismillah Le Sénégal est le seul pays au monde où les universités sont fermées, privant des milliers d'étudiants de leur droit à l'éducation supérieure. Pendant ce temps, l'arène nationale reste ouverte, offrant divertissement et spectacle à la jeunesse sénégalaise. Les étudiants réclament l'ouverture des universités, un droit fondamental pour leur avenir, mais pour des raisons purement politiques, leur demande est ignorée. Pendant que certains envoient de leurs propres enfants dans les plus grandes universités du monde, l'avenir des étudiants défavorisés est sacrifié. Face à l'incertitude et à un avenir précaire, de nombreux jeunes prennent des risques insensés en embarquant sur des pirogues pour l'Europe, cherchant désespérément un avenir meilleur. Les familles sont déchirées, inquiètes pour leurs enfants, le Sénégal traverse une période difficile et il est grand temps de briser le silence. Les étudiants sénégalais méritent une éducation de qualité. Leur avenir ne peut pas être sacrifié pour des intérêts politiques. Il est temps de se mobiliser pour l'éducation au Sénégal. Partagez cette vidéo pour sensibiliser et demander des solutions pour les étudiants. L'éducation... ay milliards yu nax saay si lu dul yoon geej gi nga jaay suuf si nga jaay kat bi door waar tay dundu ay jafé jafé yu doy nga tabax ngay stade waye mënon na nek ay milliards yu nax lu dul yoon geej gi nga jaay suuf si nga jaay kat bi door waar tey dundu ay jafe-jafe yu doy waar nga ni tabax ngay stade waaye mënoon naa nekk ci réew moo xam ni charette doonu fa ambulance nga ni tabax ngay arène te ba tey am na ñuy jàngee si ay mbaar oto yu màggat chauffeur si jooy Craig le <laughs> Craig I see you I see you right there àll bu yaatu dëkk bu xat Dakar rek du Sénégal réew mu amul kubéer ku jug dugg dugal sa la neex xeetu si ne bari yuy dugg gars yi may leen ma une minute il faut yenn saa yi dafa am suñu mbokk yi woote euh, may leen ma une minute ah voilà voilà ma. ñu naan la xanaa doo li waykat bi naan waxi dof jeunesse bu inconsciente te parano ñenn si ndaw ñi di jox bopp ñu jarul topp. rew mu sacc ak di leur epp bat kilifa diine ak kilifa aada fi alal ak daraja mo fi epp bat ñi am bat kilifa yi araftu bu mujjé nopi ndax xam lu gu metti baykat bi gisatul pep ndax tol si nga jaay nasaran si dundigu yokku xif ak mar di nu mujjé lek ba ñu laf ñun suñu pétrole ak gaz bi taxul réew mi rekk su ma déggee ay ci rot sama fit bi dem ndax géej gi lënkaloog bël bi di faat njabootu mool si lu kenn mënta xayma ma dégg ni buur tuur na ci alal ju bari te ba tey taxul mu jur saafara di liggéey ci ñàkk kaaraange te mënuñu see am teraanga geej gi ngeen jaay fi naar japp la fee gën yomb nga japp fi jeen ba tax may laaj kañ la mol di naru système sanitaire bu paralysé tawat ba tawat ñu tawat ragal dem keur docteur ndax amatul assurance bërëbu fajukaay yu amul jumtukaay ñi lay saytu di lambatu, te ñepp xam nañ ni fourchette du tank ñeex ñang ak ñangalé suxé réew mu ndaw amatul yaakar ba tax ñepp di jël gal gi borom li jaasay ci marché yi jeune diplômé di chômé ku ci paré jang yaangi jaay té du téñu lay dakk di nangu sa jaay dongo daara baa ngi jooy ngir tumuranke télévision yi di parparloo ñoom joxeetuñu xibaar yu wér tey wër-wërloo ay journaliste yu foo te duñ àtte mukk dëgg ñenn ci artistes yi ni pat su réew mi tàkk ñu ni tekk ngir sàmm seeni baat ak seeni pàcc su lépp ne tekk ñu génn ngir bëgg bokk justice bu corrompu yoon bu deng ci ñu waron doxal yoon ba fuye say droit yóbbu lu nungu sin su lu dul yoon ndaw yu fippu silelen sohal leen soxal di xex seeni ak ak yelleef bu mujjé kaso kaso yi nga sol ba mu fess te ñu ñak def gën fa fess mu melni amuñu pexé tëj rek fi dundin bi jafe fa bari fa détenu du yuuxu kuy walu je pense que fait pour que rek dépasser les nouveaux bëgg waral compilation vidéo yi encore ba euh, plus de 100 personnes ñu avons seen encore une fois ci euh, personnes sax nañu wax ñom ñoo dé ci euh, drame boo xamante ni euh, épargne euh, amna ben famille sax bu mu gën bo xamanteni sept membres d'une même famille ñom ñoo das ci quartier bo xamanteni wala commune yo xamanteni pratiquement amatul ay ndaw loolu mo xew fele ci Bargny ni ko waral nak di immigration clandestine waxtan nañ si waxtaanaat ci mais mel ne fay gën di ñew di gëna nekk ci actualité. waaw une autre catastrophe. Les <laughs> nga posez wu la question il faudrait combien de morts pour que son état bi doog jox li li xew ni importance il faut combien de morts puisque euh, euh, catastrophe bu nek wax nañu ko fi euh, euh bu yagul dara amna des jeunes yu don waxuma nak ñi nga xamanteni ñu ngi nan yegg nañu yenn départ yi yenn voyage yi nga xamanteni dañ koy filmer diko ko jàllale TikTok nit ñi diko partager ngay gis ay xale yu ndaw ndaw ndaw di dugg ci ay gal ay jigen mm-hmm. lu ne nga gis ko mm-hmm. donc te taxul à aucun moment

Et tey jii nii dama naan 750 km de côte mais amna na boor yoo xamante ne du jar sax surveillance parce que ak euh, euh, littoral bi nu mu demee foofu da lay leer ne pirogue mënu faa jaar. Mhm. mais zone yi nga xamanteni ay pirogue mën nañu fa jaar pour dem euh, comment dire ne dañuy dem Espagne la xawma fan. Mhm. mais s'il le faut sax day jar bu nekké état bi bëgg na véritablement mettre fin à cette histoire là day jar ñu jël même l'armée teg ko ci code yi pour dissuader ñi nga xamante ne nii dañoo bëgg a jël gaal yi te dem. mais bu nekkee ne dañ naan ay euh, cinquante personnes dem nañu trente deux nañu vingt décédé nañu. tey jii nii ñu ñëw naan deux cent décédé nañu mais le pays di def comme si de rien rien rien n'était man indifférence su sénégalais yooyu par rapport à ces la man moo ma commencé inquiéter Pape Matar. Mhm. Mhm. comme si ñi ñuy wax ne ñoo dee ay xar lañu wala ay béy. mais même quantité béy sax bu toll noonu su décédé. Mhm. mais dëkk ba mu décédé nit ñi dañ ciy bàyyi xel. waxatuma la ay nit. des jeunes yoo xamante nii pour man ça doit ñoom ñoo war a euh, nekk le véritable. avenir de ce pays là. Mhm. même à partir de maintenant sax waxuma waxu avenir parce que loolu lu ñuy wax di ko naxee ndaw ñi la. donc dès dès à présent la ñu war a constituer une force boo xamante ni war na mën a jàppale Sénégal mu développé. Mhm. mais ñooñu dem tey jii nii ba gerte Sénégal di. continuer par des dizaines des centaines di génn Sénégal par n'importe quel moyen mhm. ñu lay wax naan euh, euh, chaque jour ñu ne la ñaata nit dee nañ ñaata nit dee nañ te dégguloo à aucun moment état bi mu ne la jël na ay ay mesures ay matuwaayam pour loolu dakk man daal vraiment euh, seen voilà so because I happen to see some of our friends here who are English speaking I'm gonna say exactly the two major things that we are talking about here today and then I'm gonna do the same in French Euh, comme gars yi wax nañ ko ci wolof man dinaa ko tënk ci français ak anglais après ñu amal tuuti waxtaan so today what you say à s'embarquer à la désinformation fan yi boo demee ci télé yi da ngay gis ne dañuy yóbbu nee nañu quelques intellectuels pour ñu ñëw waaw xam ngeen pétrole bi gars yi di wax nii waaw pétrole bi mais pétrole bi dara amul pétrole bi deux mille vingt quatre lay génn dañuy fen pétrole bi ñu koy exploiter bu yag yag wala ñu ne la gaz wala gaz bi ñuy wax sax déglul gaz laaj leen leen ngajaga luy ngajaga ils sont embarqués dans la désinformation pour gëna décourager doomu sénégalais yi pour gëna a tax doomu sénégalais yi dem am ko xamne sax démb dama ko dégg mu nan ñu nan wa Aliou Sall amel nañu 10 mille milliards man mané Aliou Sall mais quatre cent c'est pas une réalité voilà le Sénégal il nous amène des intellectuels dans les télévisions masquées, dans les télévisions payées pour nous désinformer. Bailen ils sont dans la, dans la campagne de désinformation. Madame, comme nous nañu ne nous sommes dara dans le Sénégalais, nous ñuy fin. depuis depuis 1900 à cent nous avons exploité pétrole depuis temps au Seigneur, à un minimum taw Abdou Diouf mu yokku taw Ablaye wad mu yokku taw Macky Sall mu exploser mu melni ni tulleeg màlle xam ngeen ñaata pétrole lañu nek di exploiter tay ci Sénégal mais ken xamul ni mu les experts les contre et les experts qu'il font là mais c'est parce que ñoñu pour ñom dañoo nekk ci Sénégal boo xam ne ba léegi doomu sénégalais nous on est toujours en plein sommeil non non non on est réveillé mes amis le président Ousmane Sonko patrimoine la waxoon naa ko sénégalais yi xam nga luy patrimoine mooy loo xam ne alalu réew la le président Ousmane Sonko man bokkuma ak moom dara bokkuma sax ak mon parti politique ñu ndey bokkuñu beaucoup bokkuñu dëkk ñu xeet est-ce que vous me comprenez mais xeex bi ngeen di gis makoy def suba goudi ngone sur le président Ousmane Sonko c'est parce que c'est un patrimoine national réew mu day ñaan am un Ousmane Sonko comme Albert Einstein comme euh, Nicolas Tesla comme euh, euh, manam tey nga ne italien euh, kan la ñu wax Christopher Colomb comme Cheikh Anta Diop comme Diou, comme Momodou Dja, comme Thomas Sankara comme euh, Teingane, Patrice Lumumba comme nga Nelson Mandela Ousmane Sonko est un patrimoine national il sera engravé déjà Ousmane Sonko est déjà engravé dans les livres de l'histoire mais il faut que nous en Sénégal nous faisions ce que beaucoup beaucoup de populations avant nous n'ont pas réussi c'est sauver ce patrimoine Nous sauver Ousmane Sonko Nous dans la bonne histoire manam mu bok ci nit ñi gouverner Sénégal tay indil ñu koom-koom bu baax xam nga lan mo neex dina len jox li lay tëjee nak damay paré ni li lay tëjee xam ngeen fan lan mo xew vous savez que tubaab yi ci sen dëkk comme man tay américain les services secrets sont en train de m'appeler de me demander des informations du Sénégal ñu may laaj ay ministre di ma ay chef de société dima laaj ay Sénégal ah, les services secrets américains ñoma ont di laaj ay information ci ay Sénégal. Sénégal goudi ñu toll Sénégal aduna bi yépp xam nañu Sénégal aduna bi ay bandi chaque jour déglu len ma ko filmer yenn film bu may dem ci endroit et ils sont être en train d'être traqués ñu ngi leen di traquer fépp foo xam ci àdduna bi man ma leen wax li fo leen dem nak dëkk bi mané goudi yi ñu nek autorité sénégalais yi dañu melni ni bi ñooñu leen gëna xam imaginel tay ay ay ay service secret américain di ma di ma jox ay turu autorité comme si ñoom Sénégal la ñu dëkk du lépp la ñuy wax nag lenn li dañ koy bàyyi pour mu effectuer boppam pour ñoom ñu gis ko ñu teg ko ba faru baaba bi Jibril Waar Jibril Waar député assemblée nationale faru baaba maal Waar newu leen fi woon ci mbirum Ousmane Sonko moom mi ngi détenir ay audio ak ay vidéo yoo xam ne bis bu génnee àdduna tukki waxu ko woon fii ci may Ndour waxu ko woon fii ci ay tele waxu ko woon fii ci buntu assamble nationale El juuf Diouf El Hadj Mongol juuf El Hadj ki takk jabaru cousin am Souleymane Ndéné Ndiaye maam jaaral la ndaw si tudd maam jaara maam jaara El Hadj jabaram ji tudd maam jaara muy jabaru Souleymane Ndéné Ndiaye cousin am boo xam ne seen ñaari ndey yi seen baay yi ñoo bokk ndey ak baay mu sàcc jabaram takk ko ñëwul fii ci kanamu senegal yépp mu won leen ne moom de mi ngi yor ay vidéo ay vidéo Adji Sarr ñoom Gabriel Kane ñoom Wadji Sall keneen ak keneen ñoom ñëpp tëbuñu fii ñu ne leen doomu jàmbur bii Ousmane Sonko mi ñu sosal nii tëj ko ci biir kaso bi ñoom newuñu leen ñu ngi détenir ay vidéo léegi mënuñoo génnee vidéo mënuñoo culpabilité nit ki waaye dañ koy tëj ci biir kaso Sénégal yi di ñu indil ay làmb ñun ñu ne patt di seetaan ñun foofu la ñu toll non on ne va pas l'accepter ñun newuñu Ousmane Sonko bi ñu tëj ci kaso bi criminel la moo siifoon diw moo def lii moo dugal fale moo génne ñu ne ñoom ñu ngi yor ay preuve indil ñu léegi indiwuñu benn preuve waxatuñu dara dañu ne rek ah doomu jaambur bi comme nit ku set la te manta sàcc te masta sàcc moom du bokk ci ay élection lii mooy senegal lii la ñuy nangu ñun ñun dañuy toog ñu ne ñu ah, képp kuy sàcc ci senegal day bokk ci ay élection képp ku sàcc léegi maanaam nee leen ñu ne concours sàcc la mu leen ko tuddee ay élection Ils il venait nous dire que voilà Sénégal concours Satimofiam, fi comme concours ventilateur Amnafa, concours lëmbal am na fa Boubès bobo, nous bu bees jazz xaw ma je ne sais pas couche quelque chose loolu tamit am ah? concours TikTok yep Amnafa am indil concours voleur parce que lii du ay élection vous nous parlez des élections élection mooy doomu aadama bu nekk yor sa Nous d'identité ñun ñëpp ñu dem kenn ku ne nga indi sa mbër sa mbër bàkku bàkku bi moy lan mu campagne wër dëkk bi ne man de bo len ma joxee dëkk bi ni la ko yoré barki dem bo njaay de tegg ngeen fi lamb ngeen indil ñu benn mbeur ngeen ne moy mbeuru système bi d'accord ñu nit ñu am suñu Ama de, mo xamne Ousmane Sonko rek la bëgg faral yalla def nak mbeuru système bi daan kon yeen kay système bi wolu len seen bop am ngeen seen mbeur léegi Ousmane Sonko do len ko bayi ngir yalla yéen sàcc ngeen sen milliards yep dajale mana dem may sénégalais ku ne 10000 francs ak 20000 wala 30 ak 50000 pour ñu voter len te li ngeen di def baxna mais bayi len doomu jambour bi bu len tal dekk bi ya xeyti Ousmane Sonko bo len ko laalé dañuy dugg sen bir kër yi sulli nday sen bayyi sulli sen nday def na bu len ma wax lolu baxul Ousmane Sonko di ngeen ko bayyi par force lolu loolu du débat loolu du débat ngeen jàpp faru baaba maal yii nekk ci télé ya ka duula ka dajale ngeen jàpp sénégalais yi dàq fen ngeen entraîné leen yóbbu leen ngeen jàpp ay genre Aliou Sow Aliou Sow ba naaj gi di fay ndeysaan euh, kooku moom mënul woon wax loolu nit dof mënul woon wax loolu moom dafa gis rek Aliou Sow di sante mënul xam lu bari ci moom nee naa leen Aliou Sow góor jigéen la man wax naa leen ko man Ousmane Tounkara maa leen ko wax ba fi may wax ak yéen nii mënu koo weddi Aliou Sow est un PD je vous l'ai clair et kenn mësu koo gis ak gel amul gel ay far la am mi ngi dugg ci biti bureau ministre yu bari daf dugg am lu mu séq ñu bari ci ñoom ndax ñoom ñu ci bari ay borom ñaari tur barki démb dégg ngeen fi Mame Mbaye Niang moom ñu ne leen moom dafa ëmbal ñaari sœur maanaam en réalité li leen doon wax mooy dégg naa ñoom nee nañu sœuru soxnaam la biiral Sénégal band yu mel ni ñoo ñu jiite de délinquants comme ça à la tête de notre pays toujours à la solde de quelqu'un d'autre xam ngeen ennemi senegal Sénégal na xeex day am ay ay fossette nañ ko woo yàgg nañ leen cee woo nag waaye fan yi ñu ngi travailler ci beneen facette kombaa bi mooy ñu boycotté France kaay leen ma wax leen boycott lu muy def il faut ngeen déglu ma nag ak xel pas ak xol déglu leen ma ak xel pas ak xol voilà tey société boo gis ci àdduna bi dafa am assurance maanaam boo demee Auchan dafa am assurance boo demee ci société yu magu àdduna bi yëpp dañoo am assurance comme Auchan yooyu ngeen taal yenn oto yeeg yenn bagage yi yeeg yooyu dañ leen di fayaat assurance daf leen di delloowaat seen xaalis waaw yéen lekk ngeen ba suur waaw am na lu ñu yàqal euh, assurance société yi dañoo am assurance léegi am na beneen forme combat boo xam ne boobu assurance du ko couvrir déglu leen ma bu baax Ousmane Sonko li muy def lan la du grève de la faim la tudd grève de la faim mooy nga bañ a lekk nga bañ a lekk ngay naan rek nga bañ a lekk Sénégal ñun ñëpp mën nañu def ñaari forme combat ñaari forme ñu luy alalu France ndax France moo nekk ci ginnaaw jàpp Ousmane Sonko bi ngen baña a orange ngen baña lek lek au Auchan ngen baña dem ci bépp entité française, ngen baña jënd essence française, français dinañ leen indi liste société française mais dafa bax ñun ñëpp ñu boycotté leen pour durer une semaine pour départ lolu société yoyu un bénéfice bu doon dix milliards wala vingt milliards dinañu ñàkk cinq milliards yi ci semaine boobu te loolu man xayma bu ndaw bi laa leen jox ndax ñoo ñooñu seeni ay bénéfice c'est des ah, c'est des milliers de milliards bu ñu leen boykatee benn jour rek dañuy ñàkk par exemple mille milliards ñu boykate leen deux jours ñu ñàkk deux mille milliards ñu boykate leen trois jours quatre jours ñu ñàkk presque ay dix mille milliards loolu buñ ko defee antité français yi ñom ñëpp ay yuuxu wayaa yooyu mi ngi mel nga japp sen bagage yi rek bëss ko ba mu dañuy yu par force il est temps que ñu indi modèlu xex bu bees rew yi aduna bi yépp loolu lañu gëna ragal boycott boycott le tubab gëna ragal sax bombe atomique xam nga tubab lutax muragal mu ragal population bu bari parce que day xalaat boycott bi day ne hee population bi bari nañu bari boo xam ne bis bu ma boycotté ma torox donc nañu commencé calculer loolu boycotté les entités françaises boycotté lépp luy alalu français ñi yónnee orange ngen bañ ñii def leneen ngeen bañ dem leen ngeen bañ a laal lépp luy bagaasu tubaab bu fekkee ne dañoo bëgg dimbali Ousmane Sonko ci lii mu nekk dinañ ko waxtaanee ak njiit yi dinañ ko waxtane ak individu yi nga xamne sen kallama yi dina sori ñun ñepp ak journaliste yu bax yi ñu indi benn système boycott pour 72 heures lolu bok na ci combat yu bees ñi xex té te bu len faté encore waxat na len ko dem len jëli sen ay carte ba paré ngeen nek ci whatsapp yi waye bu fa kenn nek di wax ay waxu nañu ray nañu tal nañu s'il vous plaît bu bokk fa kenn wax nekk leen rek foofu di waxtaane waa Ousmane Sonko yàlla na ko fa ja yàlla jëlee jàmm salaam parce que li tax mooy dañu bëgg di leen jox ay information yu baax bu fa nit